I kalimatu tarhib ceerno mouhammad al huseyni wino ko yo ɗaccu ha gara o jangga yeeso ma gueɗel keddigel ngel ko maire commune wuuro ngo inan jooɗi konngol mum heddi so ɗum yawti مولامي شار محمد البشير منتقى طه شيخ عمر الفوتينين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نينا غناو اللولو نيه من سما وخ دوتول بره نه شريف مكي نيوم تيرنو حامد يربان نجبوت جي ييب بو ني واخه نجبوت مولانا تيرنو الحسين بح رحمه الله عليه نيوميت نانو ñoom ñépp nag kaddu gi ñu yëkkati kii ñu ngi ko yëkkatee ci ndigal ak lammiñ xalifa bi Thierno Mouhamadul Bachir man daal li ma warlu sama diggante sama borom mooy ma wax alhamdulillahi rabbil alamina maa ngi sant yàlla ne borom kudd du làkk maa ngi sant yàlla bu baax te di leen sant ñoom ñépp nag ne njaboot gi yëpp moom taam ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ne ziyaara bi nañu xam ni ziyaara mawlaana Cheikh Alhaaji Umarul Fuutiyu ne ziyaara bi len na ci ziyaaro kër mawlaana Cheikh Alhaaji Umarul Fuutiyu ne Thierno Al hussein Ba mi nga xam ni moom la ñuy wax ci ziyaara bi ñun ñun ak ñoom ñoo jëkk sos ziyaara bi comme xale bi ni ko nettalee ci taarix ne man ak Thierno Mountakha Ba rahmatullahi alayhi ñun ñoo sosandoo ziyaara bi ñun ñëpp ñu waxtaan ci déggoo ci d'accord ci sos ko ak sunu papa Jibi Ba yal na ko yàlla yàggal moom ndax diggante Thierno Al Hussein Ba ak na Jibi Ba ñoom ñaar seen diggante ay cheikh lañu bokk nañu gaa waaye ay nit nag daanu bokk fekk jubawuñu ci seen biir waaye ñoom sunu boroom dafa dogal ni ñoom ñaar ay cheikh lañu mais sunu papa Jibi rek moo fi newoon. li doon dox ci kër gi yépp moo ko doon dox moom moo ko doon dox Ceerno Al Huseyni Kebbe moom ci wàllu njàngal njàngale rek la féete woon ak jàngale lii rek moo doon tànkam moo nekkoon ci kër gi kenn ku ne ci ñoom alhamdulillahi Ceerno Jibi Al Huseyni kenn ku ne ci ñoom wu def na li ko war li leen taqale rek mooy kii dem na barsax kii mu ngi des ci àddina seen ay njaboot ñu ngi nii ànd ne ne Thierno Mouhamadou Al Housseyni Ba mooy taawu Thierno Al Housseyni Kebe mooy taawu sunu papa euh, Jibi Ba ne bu ñu jubawul woon دنيو دال دي جاخال نيت ني واي الحمد لله رب العالمين نيانو تشيرنو جيبي اك نيانو تشيرنو الحسين اك سين جف يني جفر كل مولانا شيخ الحاج عمر بايولين نين نوم اي نخلانو نخ اك سوكر لا رك دو خامي كي دو خامي كي kooku nag Thierno Bachir ne loolu dama ciy sant yàlla bu baax a baax bu dul woon noonu man Thierno Bachir danaa jaaxle ci sama wàllu bopp ne ñoom ñaar ñun ñoo àndoon ñu xaritoo sosandoo defandoo doxandoo waxandoo guddi ak bëccëg fi xiif nekk ak fi mar yeeg nepp yépp ñun ñoo fa àndoon ne dañu daan tëdd ci baraax sax bu nawet bi ñëwee dañuy dëkk ay paan muy senn ci suñu kaw ci wakaam fii ne am nañu ñëw indi seen caabi jox Cerno Bachir ni ko Cerno dëgg-dëgg ci yàlla nag fii waraloo fi toog jox nañ la ay kër ak ay parcelles yu ñu defar bu ni ñum mu ni ñii samay taalibe lañu samay xarit lañu samay mbokk lañu mënuma leen bàyyi munuma leen beddeeku ñun ñuy tëddundoo ci néeg ñun ñett al ba alseyni ma tëdd alseyni tëdd mais soxnaam nekk ca gannaaw ñu def fa dara rido ci benn baraag ne kër gi man maa jëkk a wax dem leen ngeen seeti kër ca parcel liñ ci def première man Thierno Bachir xam naa ko ñu taxaw ci ba ñu tabax kër gi boobu seng la woon ñu ñëw dëkk ci seng bi yàlla seede ne papa jaw mii xam na ne pantare bi ma nekkoon bu ndox ñëwee ne ay paan ak ay taasa dëkk ndox mi loolu yëpp xam ngeen ko gis ngeen ko eh, loolu nag ay nit ñëw nañ àddina ñëw ñu ni ñëwal man ñi ma andal ñi rek lay andal do butu tay de bobu jamono awma sukar awma warga ñomit amunu sukar amunu warga waye ñu luñu am rek ñu dajale ko ñu bokk ko neena papa jibi mo ñu doon togal ne bobu jamono yalla amna na lum ko abal teraanga bu ñuy def yépp ci loxoom lay jaar ñu ànd depuis Thierno Seydou Nour Cheikh Oumar ba Thierno Ahmad Oumar ba Serigne si ma xam yépp ñooñ sax ñoo defal Thierno Al Housseyni taqdim loolu boobu nag Serigne bi bu nga defante nit ak lii mu dindi doomam bi Mamadou Al Housseyni mu indil ma ko mu nekk ci sama loxo ñibbisiwul fii lu dul bi Ceerno al Huseyni demee barsax ma ni ko ba papa metti na de te yàlla may na la mën nga li nga doon mën e, bugguma sa biddéew e ak sa biddéew pap ñu nekk benn nga yàq nga nga nga nga ñàkk yar ci moom ëllëg mu nekkal la ay tëkk-tëkk ci àddina waaye bis bu mu nelewe ba nit ñi tëral ko madaani muntaka ahmad mu ngi toog ak sëriñ si yëpp nii laa ko waxee noonu la yaram na ñu ñëpp fekke nañ nee kon nag alhamdulillahi moom it Thierno Mamadou Abdou Seydi bu ñëwee mu jaxasel ma kër gi damay jaaxle damay jaaxle waaye nag man Thierno Bachir maa ngi sant yàlla nag ñaanal naa Mamadou Abdou Seydi lépp loo mën yàlla na la yàlla may nga mën lu ëpp loolu nga góor góorlu nag uuf say rakk loolu rek mooy sa taraabi sama diggante ak yow nga góor góorlu uufal ma xale yi ñu topp sa gannaaw ñoom it ñoom xale yi rakk yi topp leen seen mag ma Al Seyni waxtaan naa ak ñoom ñëpp wax naa leen li ma leen war a wax bu ngeen ko defee leer moom Ousseynou jël noo en ndeer gàll Cheikh leer bu seen bàyyi al Ousseynou Kébé jëroon ci kër Cheikh Al Hadji Omar day am bunt bu mu feeñee bu ngeen juyoo yàlla bu ko yàlla def te du ngeen juyoo incha allah ne alhamdulillahi man daal maa ngi sant yàlla loolu yàlla doxalu ko ci sama biir njaboot kon kon nag sant naa yàlla sant naa leen képp ku ci def alalam wala dërëmam wala coonam def ci léppam ku ci def diwlinam ak ceebam ku ci def ay yëkkam leer na daal ne lu waay def ci gàmm gi même bu dee xorom nga jënd indi yàlla xam na borom xam na kiñ ko defal xam na lii doy na yàlla na la yàlla féete ci fay la wadde pincin panca ne pincin pancan e golle ne xam ni yëf ku jëf-jëf yi te amul li tax mu jëf li lu dul yàlla boo moytuwul seytaane da ciy am bunt ko loo tax moo tax mu gàttal moom yàlla xamal na ko ku ci def yëpp ak loo ci def du ma wax diw du tudd diw du taas ñoom ñëpp bayena len ak maulana tabaaraku wa ta'ala ye mo len di fayal bopam man dal bashir lol la xam ah sharif الحمد لله وخنا تشرنا حامد يا ربنا وخنا شريف وخنا عبد العزيز وخنا تبارك الله شريف ابراهيم حيدر التجاني سخريت سصوب سدوم كل بغ اه سخريت لا اي واي غن دي أيوة، أيوة، أيوة. ku ci dugg yaa ciy des mani ay waay ngeen sa waay la de <laughs> ku ye daal def ci ku def ci ndànk sa waay la ay waay ngeen ku ci dugg yaa ciy des tabaarakalla <laughs> tabaarakalla monsieur ah, sëriñ bi dëgg na li nga wax tabaarakallaahu wax nga wax ju rafet wax ju tegu ci diine wax joo xam ni ah njiit bu ko wax am nañ ci moom yaakaar li nga wax yàlla na la ci yàlla jàppale ah, ñaanal na la itam li nga sonn ci bés bi ak li nga ci taxaw yàlla xamal na ko lépp soxlawul muy wax diw wala muy wax diw fi mu toog yàlla xamal na ko lépp ndax yàlla moom mooy fay moo xam lu nëbb moo xam lu feeñ moom xam na lépp mu ngi leen di sant di leen gërëm di la ñaanal commune bi yàlla na ci yàlla defal ndam lépp loo sonn fii nag ci kër gi ak njaboot gi ngir jëmmi yàlla ak yonente bi ak Cheikh Al Hadj ak barke Serigne bi yàlla na la ko yàlla fay. Serigne bi kontaan na ci yow bu baax boo demee nga nuyul ko nga nuyul ko préfet ci taxawaay bi mu bi mu bi mu bi mu taxaw ci bés bi incha allah na ci jàpp bés bi bésam la. bu ci jàppee incha allahu yàlla moo koy fay sëriñ bi li mu ameel nit mooy yàlla la yàlla fay yàlla nag ku mu fay nga kontaan. déedéet yow keneen ak keneen a ci yem yàlla ke amul yàlla na la yàlla fay kenn amul lépp loolu hay god dañaa ko burdu wanaa miin wanaa god wanaa ma sàmba wanaa ma dem ya'lamuhu llahu ko mbaɗɗon heen ko cuuɗɗon eko peññinɗon fof allah na anndi soññinde nde noon ne nag feeñal wax ji nanga ni diw nangam ak nangam ñaari mbir mu ngi ci eh, saa bo feñale mo wada tan ki nga xamni dawul won def mu dëgg lolu munafir mu ni ma it comme diw def na ma fiir ngir ma am mbaax ma def li mu def loolu baax na feeñal boobu bu fekkee loolu nga ko feeñalee baax na bu leen ndax li nga def jëriñ li jullit yi yëpp jëriñ yoon ci ni beneen mbir mi mu ngi aju ci ki def nit buñ ko tàggee rek ba mu ëpp rek lu mu nekk nit yàlla yàlla yàlla boo moytuwul seytaane da ci am prox ndollo bu même bu fekkee limu duggé duggee dagaan na dana melayu. tiyaaba wallaahi mooy ñaa ñu tagala di def na nga kontaan nga yek ci sa bopp kon ñak ko wax rek ba mbaa sa haali tan ngoppiɗaa dum e baddo dum buri tan naɓɓana fo sa halde ko wada ko goppida dum allah o oh, wi fof yo woppide allah ko kan? ni wadat no ko ni no soxla ni allah so Problem wadi hay dara ay hay ha hay goto ta junggo mu wi ko ma jamde الحمد والشكر لب بن لا اكم سانت نيت شي خيوال بيمو لا ديفال ني وارنا لا دال ني ديف غاني كو ديو ديفال غاما خيوال جيري جف جزاء يالنا لا يالا فاي واي ديفال غاما لي ديفال غاما لي اوادني كامدو ني وني دي كون على نافوري momon wona goto fof wawi ɗum ala ɗum hana goto fof wawi ɗum tambade ɗum ge seyiduna mouhammad rek nako yallah mayte moom rek moko madu sallllahu alayhi wa sallam liñuy koye ndi tagg yek li ñuy tagg seyiduna mouhammad emo jogino hunde gaɗal adina bu fekkoon amoon na lennat ci adina fu fu mu dana yëngatu wa waaye dara dana nemm mawtuhu wa xayaatuhu sawaun dundam ak deyam yépp ci yam o o mantaamo omo wuuri o mantaamo omo maayi o omo wuuri o omo maayi ammone leli e kabri makko omo nana ko haalate koye makko kanko sayiduna mouhammad sallllahu alayhi wa sallam taala mo nana kala ko neɗɗo juule dow mum lépp lu nit julli ci sayiduna muhammad salatu o ma yettomo julli bi dana yëgga ci moom o tina ɗum mu yëg ko yelli noon mën naa am nag yelli wele ndax ruuhu o tan tinata ruuxu bi ci boppam rek mooy yëg julli bi wala xaqiqa makko tinata wala xaqiqaam moo koy yëg wala sirru makko tinata wala secret moom sayduna muhammad moo koy yëg walla ahmadiyatu moom Muhammad moo ko yëg mu loolu am na juyoo ahlul fawatini wa ahlul shari gaa yi ñaari gaa yi daal juyoo nañ ci gaa ñaari gaa yi wuute nañ ci waa sharia de wax nañ ni dana yegg ci moom bawaatin ne dana yàgg ci moom ba yàgg fu mu jóge kon nag jaara jëf taal jaara ngeen jëf leen yàlla fay ah, madani abdoul aziz alhaji seyd nour cheikh omar ne jër nga yëpp nga sa bopp nga doon defaral nee na Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu lii la santaani lii la nee na muqaddam boo ko fekkee مقدم للشيخ تيجان رضي الله تعالى عنه يا مولد نينا شيخ تيجان نينا بو فكي مقدمم تي بيرب مو نيك فا نيكال nga bañ ko fay yow yaa ngi ñëw sa say mbir yang kau ko wara magal dimbele ko waye li amone ak li nga amone yep nga boole nga def sa poos nga def sa poos awarimu du do du njëriñ taalibe cerno wadi non so wadi non wari mudo ha ah, may pak cerno neena est ce lolu warna taalibe bi serigne bi warna ko def taalibe bi lo laaj la dedet fotayim tontu leen. footaañ déedéet. ngir jëmbat sa taalibe. de defar ko. far li mu amoon. nga yóbbaale ko. sax nee na ndax jaadu na jaaduwul. rafet rafetul. bon nag. yow yaay borom bis bi yaay ñaan. nit yi xam ne nag am na am na ñun ñi nga xam ne ñooy sa mag. doy nga nu kat ñun ñi nga xam ne ñooy say mag doy nga nu. ndax boo doyloowul nit doo ko wax ñaanal. doo sàkk sa loxo ne ko ñaanal. dum nana jarama duwa duwa duwaw belɗo belɗo belɗo daane ne ngandu ganduɗa dieynaba <laughs> so dieynaba nani hande dande nde ɓaade wiyama won biiɗo e nder batu he taggima eh? ha tampuɗa an hmm. alhuseyne tag o yetti alhuseyne o yetti alhuseyne ha tampa mais ala mi heeɓi kalis de yetti alhuseyne o wiya yetti alhuseyne kono nde liɓiri kono nde o liɓiri yimɓe fof yo dañ ñaarel أوين أودي ألسين محمد ألسين كمان دان ياري جينا بويل تيمو تبارك الله دوم نون أنني كشرنا عليك هذا مدوادي هذا الشريف أبي نمبر أن ندني ندني أن هذا الشريف أبي تقبل دوم محمد ألسين دوا داني ويلد ما شاء الله <laughs> سيل ما <laughs> بسم الله ندني أن هذا الشريف أبي nañ jaay addiya ñu indi ci kanamu Mamadou Al Huseyni ki mu ko jox mu téye ko ñu teralee ko ci gan yi bu ñu paree mu ñaan jabandiree hadaaya waar <coughs> jabandiree waar yo yaar hadaayo yaar ah. hadaayo yaar ndax jagguɗo ceerno ndendine ha ah. joɗɗora ah. Tivaouane 7 TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxataay rafet na na hadi yaar yaar jaɓandire jaɓe hada yaar laafaji ɗi no wara jaltu baas mbaxana yi génn baas bi ganaw baas bi dafa lëndëm lol na yem ci baas bi rek ñu ñew bu ko defé ñu ñaan ah da do ku jam angay ayawi anga maté nam ni ma gilami hala tabarakallah da ibnu ala wudner ga yehi arga ndar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 وسر الاسم سر عين الذات وحق حق عين الذات الذات وباسمك العظيم واسم الذات وباسمك الشامل للذوات الظاهر الذي به قد استدر ظهوره عن كل فكر قد خطر وباختباء الباطن الذي ظهر سبحانه من ظاهر قد استبر ربي بماء غيبك المعين وسر سر علمك المصون وببهاء عشق المحفوف وجريان القلم المكفوف وبكتاب حكمك المسطور في عالم الحس مدى الدهور وبالسمودية للصمدان وبالربوبية للرحمن وبالأحدية على الأعيان قبل بروزها إلى الأكوان وبالألوهية للأزمان وبالمعية بلا مكان وحق حق عينك العلوي وزين رسم سبلك السبلي وغين غيبك وصاد السمد ونون مكنون العيون الهمد وقاف قرآن وصاد الصدق وكنز كنز ما له من فتقي وحاء حمد أحمد المكرم وداله وميمه المطلسم وسر الأملاك وجاه العزم وكاف ركنه وراء الحرم ونقدة العلم ونقدة القدم ونقدة الوجود شكلة الحكم إني لما أنزلت ربي أنت إلي من خير فقير بتا وقد توسلت بذي الأسرار إليك يا منور الأنوار وبالحقيقة المحمدية وبالعبودية مع العبدية والأحمدية وما للحضرتين من الكمانة وقاب قوسين ومستوى سرير الأقلام وما به توسل في الأرض والسماء أن تجعل انسلاكنا في حبك حبك وهو مقتد لقربك اسلك بنا مسالك النجاة ونجنا ربي من الآفات آمين يا رب ويسير الرزق الحلال بالهنا يا ذا الجلال والجمال الطف بنا عيوبنا استر واغفرا ذنوبنا كلا ولا تشمل بنا عدونا ولا تسلط ظالما ظلوما ولا ضعيفا وقويا يوما وطهر النفوس والأرواح والقلب والأسرار والأشباح يا رب فوق الفوق رب الماء ورب تحت التحت في الظلماء بملكوت جبروت رحموت وحوتك البهموت جرم الرهموت وعالم الغيب وعالم النعود وعالم الحس ومعقل الثبوت والعز والكمال والبهاء وكبريائك وبالثناء ألف قلوب الخلق للجهاد حتى تراه قائم العماد وأيدنه بنا على أجل في شهرنا هذا وتاليه ودل جميعنا بوجهه الميسر ولا تخيب للرجاء والوطر وهب لكل سالك مريد طريقنا المراد بالمزيد واطوي له بعيد كل بون واكشف له عن حضرات الكون حتى يشاهدك أنت أنت حقا يقين الرب بتا بتا وأسقينه ربي من ماء الغيوب وتوجنه كل تاج محبوب وردي من كاردا واتي وركبنه مركب النجاة وامدده بالسر وسر الاسم وغطه بعز عز يسمي ولتكفيه مؤونة العيال ما دام في ميدان ذاك الحال وهب له المواهب السنية دنيا وأخرى عيشة مرضية وافتح له إلهي فيما يرتجي خير الفتوح يا قريب الفرج من فتن المحياء نجي والممات وهول قبره وهول السكرات ونوراً ضريحه وأنسي وحشته وارحم ولا تؤيسي وأعطه الكتاب باليمين وثقل الميزان يا معيني على السراد اجعله كالبرق وما شابه من لحظ طرف سما ونجيه من الحساب والعقاب وارزقه في لقائه حسن المآب ولتستجب دعاء من دعاك وثبتن من رجا رضاك يا ربي باسمك العظيم القدر وجايز الجاه شفيع الحشر اختم لنا بخير وسعادة وهب لنا حسناك والزيادة وسل يا رب وسلما على محمد عين الحلي والحلا وآله ومن تلا إلى القيام ما أظلم الجو وسبح الغمام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 joɗɗe moome geeci mon joɗɗe joɗɗe ha ceerno yalta